seen euh, seen taxawaay taxawaay boo xam ne duñ ne gulet ndax depuis quelques années liggéey bu ñu fi defaree ngeen ñun ñoo ko ànd ñu àndoon di campagne et vous avez largement contribué à la victoire du président de la ngeen nekk aussi ñoo xam ne ñu ñu neex àndal ngeen à l'image de vos leaders nationaux ndax foog naa bu ñu xool dans l'histoire politique du Sénégal yombut ñu gis yu coalition bu arrivé au pouvoir survivre toog ba mën naa ba jeex mu commencé waat ñu ànd nañu ànde te loolu mooy li nga xam ne mooy nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar loolu lu muy tekki day tekki ne le président Macky Sall àndul ak ñoom ngir àndu circonstance mais dafa ànd nañ ñoom ci ànd boo xam ne dañ ko fondé ci ay valeurs

chaque année Sénégal am na taux de croissance boo xam ne ëpp na 6 ba jàpp 7 pour cent ren ji ñu dugg ci ay circonstances yoo xamante ne bii du ñëw dal suñ kaw ñun ñëpp la mu ne damay woote woote boo xam ne du ma ëmb ci xëj ëmb ci seen mbooleem Sénégal yëpp lay tàllal loxo mbooleem couche yi couche sociale nekk réew yëpp laa ciy boole ci biir loolu président Idrissa Seck bokk ci. maa ngi leen di nuyu yéen ñu ko fi teewal muy Mohamed ak Manel ak Moustapha Mali ak mboolem ñi nga a ñëpp te xaj na gisuma leen président it Seck nangu loxo boobu nga xam ne moom la ko président Sall tàllal te ku ne xam na ne moom Idrissa c'est un homme d'État bu am expérience bu avéré bu am xarañte bu avéré boo xam ne am na loo xam ne mën na ko dolli réew la seule qui vaille aujourd'hui c'est l'intérêt du Sénégal parce que ñun ñëpp dañuy jàll bàyyi fi réew mi te réew mi dañ ko donn ñun ñëpp ndax maam yi kenn moomu ko ci suñu ay maam ci suñu ay wajur te am responsabilité war ko jox suñu ak njaboot dans un meilleur état ci bi nga xamante ne bii ci lañ ñu ko joxe woon loolu nag dafa laaj bennoo dafa laaj ànd dafa laaj ñun ñëpp ñu boole suñu ay force xam ne kenn ku nekk ñun am na loo xam ne Sénégal defal na la ko loo ne xaj na mënuloo ko sa bopp ñi fa jàng ñëpp contribuable ñoo fay seenum njàng képp koo xam ne yaa ngi fi nekk di commerce ba réussir également réew moo teg condition yoo xam ne moo tax nga mën a def loola kon ku ne rek am na njëkkoon loo xam ne war na ko delloo réew mi kon loolu moo tax ba kenn ku nekk ñun war a effacer ses intérêts personnels kenn ku nekk ñun war a effacer jëmmam jël li nga xam ne moom la ñu bokk ñun ñëpp te wër yàqu mu di Sénégal teg ko ci suñ kanam ànd liggéey ko te ñu xam ne bu ñu nekkee benn tàppe xol yi Sénégal maanaam dara mënu ko résister.